copine ñee la non euh, yow yaak Obama la sa combat ak Obama daaw ba ren koy dox liiru sérieusement damay wax ak yow sa combat ak Obama lamb ji ma tëggal waa uy ma léegi ñaata laa lay fay ñaata nga bëgg ma fay la yow Obama parce que lamb ji tëgg ren rambu handicapé yi yow laa sentir nga ñëw mbuur tëb tëb sa léegi bi ñaata nga bëgg ñaata nga soxla kan mooy kan mooy sa manager yow nee na may wax ak yow Lamine Lamine a koy manager waxal si kaw de boo demee am nga beneen manager yow. Oh, mais samay nee Obama Oba eh Obama bët ya xong na de. da kañ la. waaw ah, ma léegi ma wax ak si combat bi ma wax ak si combat bi dinaa waxaale ak Lamine loolu jeex na. ma ne dinaa wax ak la dinaa dinaa wax ak Lamine ci combat bi buñ d'accord jeex na. 500000 500000 baax na 500000. Mbour 500000 baax na 500000. 500000. ah yow yaa ko ne waxaaleel. yow nga ci bëreeg Obama. jeex na man ay dollar laa lay fay de dollar yow yow kan moo la gasal kàmb yow man mi lay yéene xaalis fay la ko pour nga pour nga yóbbu sa njaboot nga ni maa lay gasal kàmb waaw man mila la ma ni man mi lay yéene fay la xaalis nga ñëw bëree yóbbu sa njaboot maa lay gasal kàmb man wóolu nga nga mbur bëree mbur wóolu nga ko fan nga fan si mbur <laughs> mais dama lay wax nag dama la benn mbir booy duggati mbur rawaan bi dafa am lu mu nangu ak lu mu bañ xam nga man ndeysaan sama adversaire nga mais dama la bëgg waaw léegi waa dama bañ dama bañ nga problème booy duggati mbuur dama lay wax rab bi daam lu mu nangoo bañ damay bañ nga damay bañ nga problème ah waa baax na wax naa la de liiru daa am boo xam ni foo war a jaar ak foo war a jaar liiru liiru liiru Welma jox na ko costume de yëgatil ma costume boobu ma woon ko Welma jox na ko costume Welma jox na Bombardier costume Bombardier yaa xool costume jàpp ko jox nañ ko rek benn bu ko Babacar mais ko rek paquet xamee na ana paquet bi yow andi mu ngi nii xoolal xoolal xoolal mais yow da ngaa commencé siis léegi yow yow yow euh, Welma da yaa ko moom yow. yaa ngi yaa de affaire kenn la laal de xam nga lu may bañ damay bañ nga nekk sacrifice combat bi yow loolu laay bañ xam nga yow xam nga fi nekk nii ñaari ñaari. ah ñaari kuy nga ñëw ne seen diggante jël jël jël au devant mel ni yaay jëf mbir mi damay bañ nga nekk sacrifice combat bi da sa kay ñu awaay bu kan ñi mel kon baax na waa waa léegi léegi sa combat ak Obama laa bëgg jeex na dinaa wax ak Lamine dinaa wax ak Babacar après ok jaajëf